mu ngoog Simon Pierre Faye laata ñuy jàll ci euh, ba tey des ba tey ci li nga xam ne moom mooy euh, sujet bi ay liggéeykat la yu nga xam ne mooy ñi fi jaar ñëpp ci ay jafe-jafe la ñu nekk sànq ñoo ngi ko doon wax ba ci entrepreneur yi nga xam ne ñooy demal seen bopp mënat ñu dem ndax situation bi réew mi nekkee. njëkkee sax ci waa Sabodola mm-hmm. ak euh, tey ji gis nga ñi nekk ci usine Mamel te loolu dañ ko fay yàgg jooytu ma mbay parce que boo xoolee turu entreprise yëpp entreprise yi cosaanu wuñ fi dañ fi ñëw pour dàq seen wërsëg am fi seen teraanga. mais tu as l'impression que doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo fii liggéey ñeneen ñoo leen ëpp màkkaama ëpp leen droit ci biir réew mi parce que c'est très souvent malheureusement loolu moom lañu tàmmal nit ñi loolu presque secteur boo dem fekk ko foofu souvent liggéeykat yi nga xam ne ñooy tax borom kër ga wala entreprise ba di am teraangam di ko mën a yóbbu di lijjanti ay soxlaam liggéeykat yooyu kenn du leen wekk kenn du leen wekk ci ay licenciement abusif dégg nga ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ndakaaru dégg nga ko ci ñi nga xam ne ñoo doon ñaxtu euh, dans la région de Kédougou ci mine d'or yi ak feneen ak feneen ak feneen donc lan mooy problème bi lan mooy problème bi il faut que ñu tënku ci li nga xam ne moom la kilifa yi bëgg a tàmmal nit ñi ci biir réew mi muy jub jubanti ak jubal il faut ñu mën a jubbanti yenn jikko yi il faut ñu mën a jubbanti yenn contrat de travail yi il faut ñu mën a jubbanti yenn rapport yi entre employé ak seen ay liggéeykat parce que sinon dégg nañ ko feneen dinañ ko déggaat feneen lii bu naree continuer tam du sotti il faut que nit ñi xam ne ñii nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyloo ñu mën leen a teg ci yoon par rapport ak sunu confrères yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mm-hmm. stade ak euh, sunu làmb également euh, mais situation économique situation économique boobee moo dab seen kër ba tey jii ne mënatuñu génn comme ni ñu doon génnee version papier. Mhm. et imaginez loolu depuis mardi mardi kañ la woon. donc parution bi taxaw na ñii ay vingtaine de journalistes et de techniciens ñu ngi au chômage peut-être que ñenn ñi yàlla dina leen wërsëgal parce que mën nañu amaat liggéey feneen. Mhm. mais amaat liggéey ci biir réew mi ma Mambay moo yomb. parce que kër yi foo dem ma ngay métti. nit koo xam ne bu fin du jotee comme nii mi ngi xalaat naka lay fayee ñi nekk ci biir kër gi kooku xalaatagul indiwaat keneen ci biir kër gi dolli ko ci effectif yi parce que da koy dolli soxla da koy dolli coono à moins que yàlla nag moom moo xam yàlla moo xam mais dangay ngay gën a tiit boo déggee ne yeneen licenciement dina ci topp parce que këru liggéeyukaay yi du rek ay taskatu xibaar du rek ay technicien y a un personnel administratif léegi euh, euh, yeneen secteur am na ci biir këru liggéeyukaay yi ñooñee ñëpp surtout dans la presse ñi nekkoon ci service digital beek ñi nekkoon peut-être ay informaticiens et tout ñooñee ñëpp euh, ils vont se retrouver au chômage mais mu nekkaat beneen problème loolu moo taxoon démb ma ne kilifa yi li waroon nekk peut-être seen enjeu ñu war cee mën a réussir mooy puisque dañoo ñëw pour dimbali askan wi dimbali ndaw ñi ñu mën a am fu ñuy xëyee mais li fi nekk ci ay xëy déjà nañu ko téye nañu ko téye ñu préserver ko après ñu xool naka lañ koy fexe ba mu consolider ba yooyu bu taxawee nag ba dëgër nga doog a seet leneen loo ci ñambaas hmm. c'est vrai nag ñaar yi mën na ànd nga gum mais lijjantiwaat yeneen bunt yoo xam ne askan wi dina ko mën a am pour mën a dem liggéey mais mënoo euh, euh, euh, promouvoir emploi ba pare ngay seetaan yeneen emploi tam di nërmeelu lii nii état bi waru ko seetaan waroon na cee mën a jóg def ci ay pexe en rapport avec les éditeurs et les diffuseurs de presse pour xool naka lañ koy gérer yeneen secteurs yi tamit ñu góorgóorlu ci parce que lenn tamit li sonal nit ñi. mooy mm-hmm. fiscalité bi nga xam ne dafa ñëw. surtout ci weer yii nga xam ne ci la ñu amee nguur gu bees fiscalité fiscalité fiscalité ñàkk gum nañ fi ñaata ñaata ci ay entreprises yoo xam ne euh, yóbbu nañu seen i ay nit nduluñ mais bu continuer ma mbay. Mm. réew mi yëpp moo nar nekk chômage. te loolu gënul. ci régime bi nga xam ne moom moo fi nekk lu am solo dañuy des loolu na wax nag euh, quotidien bi du sunu làmb stade soo gisee nag ñu tëj seen i bunt dara waralu ko lu dul euh, situation financière bi nga xam ne ñu ñoo ngi koy dund euh, comme ni ñu ko waxee ci jamono ji nga xam ne metti na lool financièrement ci kërum tasum xibaar yi loolee nag bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdou Diaw formateur la ci wàllum économie des médias ca CESTI nee na faw na kërum tasum xibaar yi jéem a adopté wu ci digitalisation bi nga xam ne moom moo xew bu ko defee ñu mën cee génne ay kàddu la yu mu yëkkati du ñàkk daañ ci euh, wala sax ñu teewlu ko daal di ñëwaat. li ñu constaté tout cas suñuy suñu wàllu gëstu mooy tey modèle économique bi nga xamante ni si la média yi reposé woon dafa mënatul wéy parce que tey dafa am lu ko concurrence bu mag bu fi nekk muy wàllu xarala yi muy wàllu internet muy wàllu digital muy wàllu presse en ligne bi aussi donc du tey nga gën a méngoo jamono dugal xarala yi si sa doxali nekkatul loo xamante ni dafa lay neex wala mu dafa nekk loo xamante ni force la nga ko war a def kay amoo choix obligation la parce que soo ko deful dañ lay dépassé man je pense que tey bu ñu réinventé am nañ fu nu mën a jaar fu nu mën a jaar mooy maanaam xarale ñu gën ko jox cëram si wàllu organe de presse yi ci wàllu entreprise de presse yi parce que tey xarale yi dana la mën a permettre tey nga mën a diversifier say support boo jëlee journaux yi benn journal ngay tiré benn produit nga am tey boo dugalee xarale nga jox ko akam wut ay nit yoo xamante ni compétent lañ di nga mën a defar ay site yoo xamante ni maanaam tey dana la permettre nga mën a am beneen support d'information les réseaux sociaux dana nga mën a diversifier say sport. fii réew mi toll ni ko waxee xanaa moom moo tax ñu war a euh, maanaam euh, adopté wu ci situation bi fi nekk wala euh, dañu waxul lii am ci situation bi ñuy dund ni ko bëggaan waxee. waaw dëgg la xam nga dafa am rek benn pàttali mën a defal Mbaye ci coronavirus bi bi muy doog a am est-ce que nit ñu bëri tiituñu woon ñu ñàkk ay xëy yu bëri. Mm-hmm. est-ce que mujj na demee noonu. dafay naa demeewul noonu de ah. waaw amoon na ay kii rek ay arrêt kii nii mais li ñu ko doon yaakaaree conséquences yi defe naa tollul noonu xam lu tax mais après état bi dafa jëloon jamono yooyu noonu ay mesures xam nga situation bu conjoncturelle la mais dañoo jël ay mesures spécifiques yu boo fàttali ko am na dotation bu 1000 milliards bu ñu génne woon et cetera euh, dugal xaalis bu bëri maam ci économie dëkk bi bu ko mën bu ko defee ñu mën ko sauver wala. Mm-hmm. Abdoulaye Wade jànkuwante woon na crise moom tamit vers 2008 bu ko fàtte loolu. crise bu crise parce que crise bi mi ngi déparé Amérique ñu ne subprime si la crise financière bu mag boobu noonu ñu bëri tam fii yaakaaroon ne dina tar lool boo xoolee grève enseignant yeeg yu bëri fa la commencé waat di tàkkarnaase ba li Ablaye Wade daanu mais nag ay entreprise yu ci tëj euh, bëriwul lool comparativement ak li ñuy gis si dëkk bi nag fan yii nii sànq Simon wax na la ko man lii yàgg nañ ci alerté bi ñu faloo rek ñoom euh, ma ne leen moytu leen dafa am déformation professionnelle ñii ay inspecteur impôt lañ xamuñu lu ñuy liggéeyee réew xam nga lu ñu xam nga liggéey ba pare ñu jël li nga liggéey. def ci gafaka état ñoom loolu la ñu xam mais amuñu ingénierie financière wala xam-xam ah waneekuñu ko ba tey de boo xam ne bii nii mën nañu taxawal kii quoi nu tuuti de de fexe xam li ñuy maam li ñuy li ñuy tabaxee dëkk. Mm-hmm. amuñ ci benn fenn benn jaar-jaar boo xam ne prédisposé na leen pour ñu xam li ñuy tabaxee dëkk. léegi nag situation bi xam nga lañ ko gëjee dund ci taarixu Sénégal jamonoy Abdou Diouf bi muy Abdou Diouf di doog a falu ñuy wax ajustement structurel Hmm. mooy boo fàttalikoo entreprise yu bëri di nëmbeelu di tëj suppression emploi yu bëri dégg te am Diouf sax après tane na parce que moom tamit bi mu àndee plan saaxalum à partir de 1993 à Mambay fexe na ba après ñu andi ay mesures yoo xam ne nii bon libéraliser nañ c'est vrai. Hmm. ah am na entreprise yu privatisé mais daal sauvé nañ ay emploi léegi nag ñii nañu moytu nañu moytu parce que lay yi ñuy def souvent amul damay xoole que da ngay jël rek arrêt yi ñu def nii. lan nga ko mën a expliquer loolu chantier yi ñu arrêté xam nga ñu ne d'accord dañu doon sàcc suufu Sénégal wala yooyu mais fan la ñu sàcc fan la ñu sàccul suufu Sénégal doo nga nga arrêté doon lépp kay sax ñu xam ko mais benn privé Atepa Goudiaby bi mooy annoncé ne dégg nga te mu am ay intérêt ci secteur boobu ne dañoo war a arrêté travaux yi état def ko foofu la problème bi nekk xam nga loolu après dafay am lu ñaan déchéance de crédibilité mm. confiance dootul amati ki muy dal def des règlement de compte la mm. arrêté des travaux près de dix millions de chômeurs je crois créés bu bàyyi nga xool dafay am euh, ci port bi xaalis bi waroon dugg du dugg parce que matériel yi ñu war a dugal dootul duggati finalement. Mhm. donc njeexital yi dafay bëri boo xoolee. tey eurobond bi anamu xaalisu eurobond bi anamu. biñ fi lebal bu dee bu dee jël nañ ko bu dee jël nañ ko laa wax xam nga tollooguñ sax peut-être ci capté ko mais xam nga au moins cin bu noree neex bu baxee dafay xeeñ. Mhm. ñu ne ñun xaalisu quatre cinquante milliards xaw ma cinq cent milliards bu ñu ko jotee fii lañ koy dugal pour perfuser suñuy pour joyantil économie bi ba tey defuñ ko la et puis et yàlla xam na ne man mii di wax yow très humblement keroog guddi gi ñu koy kii man baa ko jëkk bind ci journal sénégalais. ok dégg nga xaaral ma ñëw ma jeexalee foofu bi ma ko bi ma ko bindee ba pare man Bloomberg bu ma ko gisee site bu ma ko gisee dañ ne état Sénégal communiqué wu ci dañ ko doon nëbbu nit ñi donc nañu leeral nit ñi. donc fan la ñuy dugal xaalis bi moo gën. li ñuy lay vraiment voilà.